ça va na nga def. yaa ngi cool. lu ma ñàkk fayda nag ñun ñu ñëw ci man kenn ñëwul ànd na moo tax sama xaalis ma dugg ci kanam xam naa ni ko jiitu fii ay ati ati jox yow naa Europe jël naa oto joxe naa ko ci terrain dégg naa ko xaalis wax naa oto jëndati oto mais dafa am loo xamante ni bu yàggee lu baax ñàkk fayda jàpp na leen mais bindeur bi wallaay talaay gis naa ko dem ci guddi wala dem ci guddi dama yeewu ñoo ma ko mën leen pare jël jël ma leen expliqué histoire bi ñu demee ak ñu ñu ñu ñu toogee ñun dana lépp waxtaan ak barki seen par parrainage li ma ci métti kay mooy déplacement bii nga def mooy métti ndax yaay sama kilifa soo ma woowoon ne ma demoon jëli Pawlish wala kii ma dem jëli ko déplacement boobu moo métti le fekk nga nga bàyyi say temps ñun ñëpp yaay suñu kilifa yow naw gi ma la naw Sénégal yëpp xam nañ mhm. man yaay sama kilifa ba ma nawoon eh, dama nga jëli Pawlish ma def même su ma demul dinaa yónni kër mu dem jëli ko indi ma boobu moo métti waaye kii su ma doomu doom nag du njëkk mënu ci dem waaye bu demee day dem kër bàyyi amul solo yàlla baax na yàlla na yàlla sàmm leen. yàlla na leen yàlla sàmm te eh, aaral ma leen. waaw yàlla bu dara topp. waaw. waaw waaw dëgg la ci moom dëgg la xam naa fi nga waxee. noo hmm. noo mel ni hmm. bëgg dama rek du leneen bëgg la waaw waaw yaa ngi jëloon sa nekk moom yaa ngi defoon quoi. waaw baax na waaw baax na. yow yéen sumay doom ngeen waaw yal na leen yàlla sàmm aar